Le budget, c'est une question extrêmement importante parce que aujourd'hui Médinois yi boo gisee ñuy intéressé wu à la mairie wax dëgg ma si profité di remercier tous les conseillers ñoom ñoom Pape Jean ñoom Clémence vraiment ñoom Martin ñi nga xam ni dañu jàppale si xeex boobu mais le budget de la Médina c'est un problème c'est un problème comment une un quartier comme la Médina nga xam ni on a Soumbédioune on a on a euh, Blaise Diagne avec tous ces gens qui vendent on a la la le centenaire avec les commerçants chinois on des boutiques partout le budget de la Médina nekk un milliard loolu kuy médinois loolu war na la jaaxal moo tax je dis aux ni ñuy aborder budget bi du noonu c'est pas du côté des dépenses man de je parle devant des journalistes je m'engage bis ma joxoon mairie Médina je m'engage à doubler ou à tripler le budget de la Médina ça c'est clair net et, et c'est facile à faire le plateau est à milliards Fan Gueule Tapée xëy na je ne sais sont à plus d'un milliard ñoom mais ñun on est à un milliard et un milliard yi ñëpp xam nañ ne c'est du fonctionnement c'est pas de l'investissement c'est du fonctionnement donc man je m'engage et ça c'est facile parce que nag inspecteur impôt xam naa ni ñu wutee xaalis donc il faut que ñu basé wu sur les ressources économiques qu'on a d'abord sur la citoyenneté parce que nag bis bu ñu jëlal maire bi aussi waaye maintenant il faut ñu def effort parce que il faut ñuy cotiser bu ñu cotiser ñu am budget bu conséquent ñu defar suñu quartier kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko mën defaral suñu bopp